yaay ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñoy dara ci chaîne bi nga xamne moy mooy Romo Sport ñu wara ñew yeen ci benn vidéo wax ci max Sénégal ak Côte d'Ivoire bi mu jexé polémique bu bari ku nekk di acharnawu ci kaw arbitre bi yeen ñi bëgg xam nak lan mo xew ci loolu danga ñuy top vidéo bi jex mais laata loolu dañu wax yeen ñi gën ci bile page yu ngeen abonné te ngeen bëss li nga xamne moy cloche de notification bi pour ngeen mëna am suñu ay vidéo à temps réel ci Rmo Sport sama gaay yi ginnaaw bi mak Sénégal jéxé ak Côte d'Ivoire ñepp suñ fang jëm ci ki nga xam arbitre bi wante nak ñen ci Sénégal yi suñ fang jëm ci ki nga xam ne mooy Cissé wante lo ci mëna dégg rek muy ñaar yépp mëna ci japp mais arbitre bi la gëna japp ndax tay Aliou Cissé lim programme woon na door numu dooré baxna tey bu woon téye nañu suñu penalty dañuy teel am 2 kon li nga xew mooy xew maanaam Koldara bi dugal 1 lay dugal mu nekk 2 1 ñu qualifié su boobaa tamit loo kiitige kiitige Aliou Cissé <laughs> da ngay wax dóor naa rek mais arbitre bi nga xamante ne bii ne Côte d'Ivoire def nañ hors-jeu tiré bu ko ba téye na ci oto bu penalty te xooy na VAR lu ngeen bëgg kenn du wax ci moom. arbitre bi nga xam ne moo war rouge Sadio Mané rouge ko lu ngeen bëgg kenn du wax ci moom arbitre bi nga xam ne moo war a téye Ismaïla Sarr penalty avant 15 minutes ci max tiiroo ko loolu bëgg duñ kenn du wax kon moo yàq match